salaamaaleykum wa rahmatulillah taala wa barakaatu ñu ngeen di nuyu di leen sant te di leen gërëm rawatina yéen journalistes yi nga xamante ni yéen a ñëw fii pour wane li nga xamante ni moom la ñuy liggéey fii ci ndigalu sëñ Mountakha Bassirou mbakke fii nag ñu toll actuellement tey jii man man maay Ahmed Thiam di directeur de travaux bu Touba Matériaux ay jamono it aussi maa liggéeyoon xabru sañ Bassirou bu Daaru Minam euh, fii ñu toll nii actuellement moom mooy bibliothèque bi bibliothèque bi nag dafa am ñaari mbir yoo xamante ne jar naa leeral ci njàlbeen dafa am bibliothèque ba pare am euh, librairie bibliothèque bi mooy euh, diwaan bi nga xamante ni fi la ñuy euh, dencee lépp loo xamante ni liggéeyu sëriñ bi la ak lépp loo xamante ni borom xam-xam yi nga xamante ni liggéey nañ ko ci lislaam liggéey ko it ak fu muy manti doon dina fekk fii donc bibliothèque bi fi la ñuy stocké liggéey boobule mu nekk bërëb boo xamante ni bépp téere bu nit daan jële ji bitim réew ci wàllu diine dina ko fekk fii rawatina nag ci liggéeyu sëñ bi te si biir loolu it aussi ah dina nekk euh, bërëb boo xamante ne dañ fi def consultation nga ñëw dinañ ko aménager rez de bi parce que mu ngi nekk euh, dix mille six cent vingt cinq mètres carrés de bâtiment mais si suuf deux mille et quelques yi dafay nekk bërëb boo xamante ni dañ koy installer uniquement pour ay table ak ay bureau yoo xamante ni képp fu waay manti jóge ak fu muy manti doon boo dikkee ah jaar ko ci yoon di nga dugg. téere boo soxla dinañ la ko tegal nga consulter xool ba mu neex la bu dee nit koo xamante nit aussi ku wér la te am adresse bu leerit boo fi bàyyee euh, li administration bi def téere boo soxla mën nañ la ko jox nga dem gëstul ko sa bopp euh, sa kër te boo delsee indiwaat ko donc fii daal bërëb la boo xamante ni conservation moo fi nekk ak consultation ak euh, recherche moom mooy nekk fii terewul nag am na bâtiment boo xamante ne dinañ ko wax ca kanam muy affaire euh, librairie bi nga xamante ne fa la ñuy defaree mu am impression ak it vente kooku moom librairie ba la kooku moom euh, dinañ ci jublu. wàllu liggéey bi nag li nga xamante ne moom laa la ci njëkk a wax mooy euh, bibliothèque bi ñu nekk dafa nekk bibliothèque boo xamante ni fondation bi dañoo njëkk a woo ñi nga xamante ni ñoom la seen xam-xam nàcc ci wàllum suuf bi biñ ko saytoo ba xool ko xam ni li ñu bëgg a def. ak descente de charge bi ñu ko defee ak poids bâtiment bi nga xam te ñeenti niveau lay doon nekk euh, quatre vingt de lon vingt-cinq de large ñu ni léegi il faut bâtiment bi mënul leen a ñàkk bañ a wàcc à deux si suuf bi ñu wàccee a deux mètres ñu consulter ko ñu dellusiwaat consulter ko ni foog ngeen dolli ci cinquante centimètres muy deux mètres cinquante biñ ko wàccee nii fii ngeen toll nii ba mu nekk deux mètres cinquante ñu gis nag ni ah tey di si sant aussi Abdoulahat Ka mi nga xamante ne mooy euh, entrepreneur bi nga xamante ne moom moo doy moom la sëriñ bi doyloo ba jox ko ci la wax ni moom bu sañoon lii ah bien que tubaa amul problème mu terrain mais nañu euh, def sous maanaam sol bi ñu exploité ko mu nekk loo xamante ni mën nañ fa conserver mën nañ fa denc. mën nañ fa it aussi dugal ay oto mën fa def lu leen neex mais pour l'instant conservation lañ ko def léegi boo xoolee liggéey bii ngeen euh, gëstu léegi gis ngeen fondation bi ah ñi nga am béton de propreté boo xamante ni dix centimètres la moom la ñu lal nga xamante ni uniquement rek pour mu euh, set ñu mën a tracer bâtiment bi ci kawam. ginnaaw loolu ñu def fi ay radier radier bi moo nekk nii ngeen gis nii moom mooy nekk radier bi nga xamante ni soixante centimètres de béton la. parce que li tax mooy que ni biñ ko defee aussi dañu xalaat ni bâtiment la boo xamante ni ëllëg sibir biir mën nañ ko modifier nu mu ñu neexee si jamono waaye structure bi ak dëgëraay bi kenn dootu ko laal loolu moom moo tax rajo bi ñu ko calculer ba xool ko mu nekk 60 centimètres de béton rajo bii ngeen di gis ni fi mu nekk nii euh, dafa am ñaari lii. ñaari lal benn lal bu njëkk bi fer de douze dañ ko defee espacement de quinze mu nekk mu dem ñu euh, ñu def ko longitudinalement ak euh, euh, sur le plan largeur aussi nga xamante ni dafa nekk loo xamante ni dañu croiser lal bi ah écartement quinze centimètres ginnaaw loolu nag lañ def suñuy deuxième lit deuxième lit bi aussi dafa nekk fer de seize boo xamante it dañ ko lal croiser ko ay écartement de quinze pour que mu nekk loo xamante ni vraiment dina nekk euh, suivant euh, li technicien yi joxe muy le bureau de euh, d'étude li mu calculer d'après ses descentes de charge bi mu ko calculer loolu la ko jox xëy na sax am na côté yoo xamante ne feebaloon na mais dafa harmoniser lépp pour mu nekk benn diamètre parce que am na yoo xamante ne quatorze la woon am na yoo xamante ne douze la woon ainsi de suite mais dañu maasal lépp def ko seize ba pare nag ñu doog a taxawal nag poto yi poto aussi bi ñu taxawee ay fer de douze la mais terewul dafa am ay renfort ci suuf am renfort ci kaw léegi nag périphérique bi yëpp dafa nekk voile voile boo xamante ni voile béton armé la moom mooy jug sur trois mètres boo xamante ni euh, bokk na ci élément de de yi voile boobu les fer de douze la aussi bu jug ba téye bâtiment bi sans compter poto yu nekk ci biir ci biir loolit it aussi ah, gis nañ ni ah, bi ñu seetee loolit aussi foog mu am aération aération bi mooy lan mooy que ni il faut mu am benn décalement de un cent de un mètre ci kaw boo xamante ne fa la ñuy génn ay aération pour sous bi mën a nekk sous boo xamante ne dañ koy aéré ci ah, biir loolu aussi am na ay ascenseur ascenseur benn baa nga ne la suñu ginnaaw côté bële am na escalier yoo xamante ni ci la ñuy wàccee pour mën a dugg ci biir euh, hauteur sous plafond bi. biñ ko xoolee ci xayma bu njëkk ñi ngi ko naroon def deux mètres soixante quinze mais bi ñu demee ba ci biir ba gis ni terrain bi demee yokk nañu hauteur sous plafond bi ba mu nekk trois mètres vingt trois mètres yooyu nag ah li ma la ci mën a leeralal tuuti rek euh, del si si fondation bi mooy fondation bi euh, soixante centimètres rajo yi ngeen gis nii nekkul ni dañ koy def comme ay semelles isolées def fii def fii def fële déedéet dafa nekk ni bâtiment bi toll quatre vingt yi mu guddee. ak vingt cinq mètres yi mu large lépp la lal aw dàll jël béton boo xamante ne soixante centimètres la ak fer yi ma leen wax muy seize ak douze defe rabbe ko ko sotti ko beton ba mu fees dell muy soixante dix centimètres léegi nag bu ñu ci tegee bâtiment bi day mel ni ëllëg ku demoon ba nga xamante ne am nga euh, xam-xam bu toll ni nga mën a ronu bâtiment bi maanaam ta euh, jam ko ci suuf pour yëkkati ko boo ko doon yëkkati bu la neexee mën ngaa yëkkati dàll wi bâtiment bi tegu ci kaw parce que fa mu tegu dafa nekk xeer woo xamante ni xeer wu wér la woo xamante ni du jeng fenn donc lii mooy li nga xamante ni moom moo ci nekk ginnaaw loolu nag ñu commencé nag doo ko euh, ñëw nag ñu am premier étage en rez de euh, sous bi nekk deux mille et quelques mètres carrés premier étage bi nekk euh, rez de bi nekk deux mille cent mètres cent vingt cinq mètres carrés Euh, deuxième étage troisième étage ba quatrième étage bu ci nekk deux mille cent vingt cinq mètres carrés la lépp nekk na dix mille six cent vingt cinq mètres carrés construit yoo xamante nit aussi ah ñu ngi ci sant di si gërëm sëriñ Mountakha Mbacké parce que bañ koy liggéey xelam dafa dem ci mu xalaat kan mooy euh, yore bibliothèque xalaat ñan ñooy def archive xalaat ñan ñooy yore affaire documentation ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk sa xam-xam ci wàllu murit ci wàllu. administration ak ci wàllu international fu fu mu xalaat ne boroom xam-xam ma nga fa bu bu muy naaj ci loolu indi nañ la fi bi ñuy defar plan yi ñu bokk ci waxtaan diisoo déggoo ci lii déggoo ci laa. looloo tax fi mu nekk nii instant bi ñu toll nii bi ñuy defar bibliothèque bi ay jamono dafa nekkoon bibliothèque boo xamante ni mi ngi nekkoon cinq 500 mètres carrés mais ba mu àggee sëñ Mountakha mu ni déedéet sëñ 500 euh, mètres carrés tuuti na ci liggéey sëñ Touba ci lañ ko yóbbu 2000 mètres carrés par niveau. cinq niveaux mu nekk dix mille six cent et quelques mètres carrés bibliothèque bu mel nii moom moom noon naa ni Sénégal moom benn la fi pour l' instant waaw amagu fi daal. Euh, fii ñu toll nii moom toujours ci zone administration bi la dañoo génn ci bibliothèque bi daal di ñëw ci rectorat bi rectorat bi nag mooy fi nga xamante ne moom mooy euh, le cœur mooy xolu université bi fi la borom xam-xam yeeg euh, sëriñ seeg ak professeurs yi ñoom ñëpp fii la seeni i bureau nekk fii lañuy toog di def seeni i ak seen i planning pour xool naka la ñuy étudier ak naka la ñuy jàngale xale yi moom dafa nekk bâtiment boo xamante ni mi ngi nekk euh, rez de ak ñetti étage moom moo nekk nii ci biir loolu it aussi ah ba tey toujours liñ naan di sant sëñ Mountakha Mbacké mais di santaale it aussi ah wax dëgg yàlla euh, euh, Abdou Lahad Ka mi nga xamante ni moom moom nee na moom sëñ bi moom lu mu xës ba tudd rek loolu mun dara waru cee ñàkk tey dara waru cee euh, so siixe saaxe daal moo tax fi mu nekk nii bâtiment bii ngeen gis nii ginnaaw bi ñu defee fondation bi ba yëkkati poté yi dañoo naroon di couler dal bi ah genn wàll demaat ci genn wàll mais ba ñu coffré ñun techniciens yi nga xam te ne ak suñu xalaat ba coffré ba ferraillé war a couler mu ne déedéet taxaw leen lu ngeen soxla ci matériel en une semaine wala dix jours dinaa leen ko indil ngeen àggale coffrage bi moo tax coffrage bi nga gis ni nga gis ni mu ni mu mu mu bindoo lépp la ñu kuulee la ñu coffrendoo benn yoon parce que nee na bugg koo kuule di taxaw di kuule waat daf koy kuule benn yoon parce que am na centrale boo xamante ni comme ni ma leen waxee fële muy def euh, cinquante mètres cube soixante mètres cube du ko indi ba pare du ko exploité moo tax nag Euh, mu ni nañ ko boole lépp nga xamante ni lu mu gàtt-gàtt donte bu fekkonte ni cinq cent mètres la it aussi dina ko mën a euh, couler ci benn bis parce que am na ay camion tuppi lu toll si juróomi camion yoo xamante ne dañuy jëli béton benn bu nekk mi ngi jël dix mètres cubes donc juróomi camion yi dina indi cinquante mètres cubes bu ci def ñaari yoon rek ah, daanaka muy cent mètres cubes donc bu ñu ci defee ñeent yoon daanaka quatre cent mètres cubes dinañ ko couler ci bis ci diggante huit heures ba quatre heures xamante ne ñu ko daan liggéey ci ñetti fan wala ñeenti fan euh, toll nii ñun ñu ngi santaat ñu ngi dolli di santaat sëñ euh, sëñ Muntaxa mais di dolli di santaat it Abdou Ka mi nga xamante ni moom mooy euh, directeur Touba Matériaux parce que dañoo am délai boo xamante ni dañu see tiitoon sëñ bi joxe ko te mënuñu see wàññi benn fan ñu doon def façon bu ne woo nañu taalibe yi woo nañu euh, waa Sénégal dem nañu jóge na fi dem ba bitim réew jële fa ay turc am na kenn ko gisoon léegi si Turquie nga xamante ni daf leen indi muy ay borom xam-xam yu xarañ yoo xamante ni kenn ku nekk ca wàll wa nga nekk muy coffrage di maçon di lépp kenn ku nekk mu jël ab doomu réew mi jël surtout doomu euh, taalibe murit jël si ñaar wala ñett teg euh, boole leen ak ñoom ñu ànd di liggéey pour que bu ëllëgee bu ñu soxlawaatee lu mel nii dootu ñu soxla di leen jëli feneen mu ñu dem ba ci loolu ñu gis ni bu njëkk ba fii bu ñu daan liggéey dañ daan woote mbooloo naan góor euh, peel jigéen palaat daan liggéey suba ba ngoon moom mu ne xaaral foog mu trouver benn solution lii nga gis ci ginnaaw moom la ñuy wax camion toupie moom du def dara lu dul di transporter béton rek beton kese kese lay transporte mais nag dinaa tudd nag fa mu koy jëlee muy centrale ba parce que it centrale ba dafa nekk central boo xamante ni bokk na si centrale yi nga xamante ni néew na mu am Sénégal muy centrale boo xamante ni dinañu defal cinquante mètres cubes ba soixante mètres par heure par waxtu waxtu wu ne man centrale bi man naa génne cinquante ba soixante mètres cube de béton léegi nag su ko defee nag camion yii am nañ si juróomi camion yoo xamante ne ñooy jóge centrale ba di indi béton bi fii ah ñoom loolu rek mooy seen liggéey camion boo ci gis dina indi dix mètres cube yoo xamante ne de béton dina ko indaale nii ba ñuy tàmbali nag ñi ngi programme woon di couler vingt cinq mètres cube wala trente mètres par jour par bâtiment mais ak centrale bi fii nga ñu toll tey jii ñi ngi commencé onze heures waaye balaa cinq a jot dinañ fi couler cent vingt sept mètres de béton yoo xamante ni bu njëkk daan nañu yóbbu juróomi fan wala juróom benn fan moo tax délai bi sëñ Mountakha joxe looloo waral nag Abdou Lahad Kane man ah, ah, ah sëñ bi duma gën a gore dem na ba nga xamante ni délai deux ans. fii ñu toll nii di ngeen gis yeneen bâtiment yi ñu ngi toll si juróom-ñetti weer bâtiment bii ñu toll bi ñu ko commencé ak léegi matagul weer bii ñu toll nii te boo xoolee nii fouille bi àgg na quatre vingt pour cent ferraillage bi àgg na trente pour cent béton de propreté bi moom àgg na moom it euh, pour cent mu des ñu nag léegi radier radier bi it nag aussi dafa nekk loo xamante ni comme dafa bari béton mi ngi nekk mille quatre cent vingt-sept mètres cubes de béton. war a nekk muy muy fondation bi rek war a nekk cinq cent tonnes de ciment yoo xamante ne moom la ñuy utiliser uniquement pour fondation poto bokkul voile bokkul leneen bokkul lii ñuy def nii nga xamante ni moom la ñuy couler muy beton de propreté bi mi ngi ci quatre cent mètres cubes yoo xamante ni bokkul ak mille quatre cent mètres cubes yi donc muy deux mille mètres yoo xamante ni war nañ ko def si fondation bi. Euh, fii ñu toll nii actuellement moom mooy euh, Majalis bi nekk zone bi nga xamante ni dafa ñor mun Mountakha Mbacké donc majalis bi nag dafa nekk zone boo xamante ni ñetti bâtiment ñi ngi si ñetti bâtiment yi nag dafa nekk ay bâtiment yoo xamante ni ay salle d'étude la ñu bâtiment bi gën a ndaw ci bâtiment yi moom mooy maja moom mooy euh, salle bi mi ngi nekk euh, six cent mètres carrés par niveau donc nag euh, ñetti niveau yi nekk deux mille six cent mètres carrés ci biir loolu nag am na ci bâtiment boo xamante ni bâtiment double la muy bâtiment bi nga xam te ne dinañ ko gis léegi moom nekk na deux mille et quelques mètres carrés kii nag mooy restaurant bi restaurant bii ngeen gis ni fi mu nekk nii dafa nekk restaurant boo xamante ni mënuloo yore ay tout tànk ñu jógee école coranique war a jaar majalis te bu ñu jugee bi euh, doo ko dem ci univers ci kë xolu université bi donc nag moo tax ñu defar fii restaurant yi restaurant bi ngeen gis nag du fi benn du fi ñaar parce que am nañ fi daal euh, lu toll ci huit restaurant yoo xam te ne ñu ngi ci biir université bi mais bii moom mooy restaurant euh, majalis bi ni ngeen ko gis nii moom la ñu tàmbali nii bi ñu ko tàmbalee ak léegi mi ngi toll maximum moom ci ñetti weer te it léegi actuellement ñi ngi war a am na partie boo xamante ni euh, mooy euh, waañ wi ci boppam ñi ngi ko war a def en dal am na ci partie boo xamante ni nag mooy fa nit ñiy lekkee xale yi tout tànk yi moom dafa nekk charpente métalique charpente métallique boobu actuellement ma nga atelier ñu commencé di ko réfectionner donc moom ci boppam normalement feeg ñetti weer gën ngaa bari ñeenti weer nekk na bâtiment boo xamante ni bu fekkente ni amul dara lu ko gàllankoor moom dina bokk ci bâtiment yi njëkk a pare incha allahu rabbi léegi fi ñu toll ni actuellement ñi ngi ci biir laboratoire université bi bu ñu nee laboratoire nag mooy laboratoire technique pour uniquement euh, travaux yi la. laboratoire la boo xamante ni bu njëkk ba dañ daan def ay essais yoo xamante ni fii dafa am bureau d'étude ginnaaw bi mu defee étude plan béton armé yi ba pare dañ ko jox lu ñu naan bureau de contrôle bureau de contrôle bi nag bureau la international bu ñu naan SCAC parce que chaque poteau. wala chaque ouvrage ba ci longrine yi ngeen gi sànq ak euh, rajo yi lu mu ci manti doon bureau de contrôle boobu day ñëw contrôler ko bis par bis defar PV de visite ah PV aussi d' autorisation de couler yooyu yëpp dañ koy am mais ginnaaw bu ñu ko amee ba pare nag dafa am ci la laboratoire bi doog a ñëw ah bu boobaa moom mooy ñëw jël ay éprouvateur bu béton yoo xamante ni ci lay jël pare dina def ay écrasement yoo xamante ni bureau de contrôle bi koy demandé à sept jours ñu war a am à peu près ay dix neuf MPA en général ensuite à vingt vingt huit jours ñu war a am à peu près ay vingt huit ba vingt neuf des fois ñu àgg sax trente MPA euh, ci ci yi. mais ci biir loolu nag li tax ma di ko introduire moom mii nga xamante ni mooy Diop di laborantin bi c'est parce que dafa nekk loo xamante ni Abdoulahat Ka ci boppam bu njëkk ba dañu daan jël épreuve di ko yóbbu Saint-Louis wala ñu di ko yóbbu Dakar. ñi euh, duñu ko defaral foofu fu mel ni serek wala fu mel ni labosol wala yu demee noonu mais ginnaaw wala technosol it aussi mais ginnaaw loolu mu ni moom ah bëgg na daal à partir de maintenant euh, Touba am dotation yooyu yëpp ci la dem ba Turquie yii mu jële ko Europe mu nekk matériel bi nga xamante ni monsieur Diop laborantin dina leen ko expliquer tout à l'heure ak ni muy fonctionner mu nekk matériel boo xamante ni matériel de dernière génération la bari na fi nag bureau laboratoire yoo xamante ni matériel bii nekk fii nekkul foofu parce que bii dafa nekk matériel boo xamante ni c'est informatisé ba nga xamante ni lépp loo xamante ni danga koy mën a am manuellement day fekk nga def ko lecture si euh, sa écran ba am ko ba pare doo ko continuer manuellement. comme ni ko suñu directeur des travaux waxee rek. ñun ñoo fi nekk euh, comme responsable laboratoire bi aussi ñun ñooy def essai laboratoire ak prélèvement yi au niveau des batiment voilà léegi bu ñu defee prélèvement yi au niveau des bâtiments dañu ñëw plongé ko ci benn bassin am nañ fi bassin à 7 et vingt 28 jours bu 7 jours yi matee on l'écrase ci presse bi dañ koy écraser presse euh, à béton 1500 kN automatique dernière génération je peux dire on on peut dire aussi que ni ñun ñun ñoo ko am ci fii Sénégal ñu ko fi am bariwul quoi wala ñun ñoo ko fi njëkk a am euh, machine ordinateur bi li ñëw moo koy piloté am nañ tableau de bord aussi voilà léegi avec tout sax ñu ngi góor góorgóorlu di def ay moyens di euh, di di xool liggéey bi daal nu mu sellee ak nu mu baaxee ñu koy def ba boobu ba léegi ñu ngi ciy gis ay résultats yu baax ñu ngi góorgóorlu daal pour diir peu ñu ngi góorgóorlu. fii la mujjee ci majalis bi. majalis bi bii mooy bâtiment bu mag bi bi nga xamante ni bâtiment yu ndaw yi comme ni ma leen ko waxee sànq ah mi ngi nekk 600 mètres carrés par niveau nekk 2400 mille 1400 ah, mètres carrés par bâtiment bii nag mooy bâtiment bu mag bi nga xamante ni moom 1200 mètres carrés la par niveau mi ngi nekk 2800 euh, euh, mètres carrés euh, moom bâtiment bi la ci biir loolu nag gis ngeen engin bi nekk suñu ginnaaw. muy ppm bi nga xamante ne cinquante tonnes la donc lépp loo xamante ni dafa war a yéeg ca kaw fii ba troisième niveau nekk ay vingt moom engin bii moom moo koy euh, liggéey engin bi nag yàgg na ci propriété Touba matériaux mais terewul da ci am beneen boo xamante ni mat na bii ñaar moom la euh, Abdou Lahad Ka jënn ah ni uniquement daf ko destiné pour université pour liggéey bile donc bâtiment bi moo ko moom lañ jeexale pas-pas bi ma am ak yéene ji ma am li ma bëgg mooy képp doxin wi nekk doxinu murit doxinu murit nag ci Pastef rek la war a nekk mooy bëgg fee def loo xam ne benn exemple lay doon montré Sénégalais yi ne euh, euh, Sëñ Tuubaa am na lépp mënal na lépp ci biiram te te te mën naa bañ a wuti dara benn waaye montre aussi Sénégalais yi xamal ne leen Sénégalais yi war nañoo mën a def lii montré benn exemple ci sama bokki opérateur économique ak entreprise yi ne war nañ mën a def fu ñuy nawe lu ñu yoo xam étranger ba di ko naw rek war nañ ko jox ab national mu def lu lu gën a gaaw wala lu gën a rafet wala lu mel ni moom loolu laa ci jublu